yaa rabbana bashir xaliilika alxabiib bi xidmati wa kullu saalixin labiib yaa rabbana bashir xaliilika alxabiib bi xidmati wa kullu saalixin labiib aamiina yaa rabbi bi xaqi wajhika yaa waahidan laysa yuraamu shibhuka yaa man li wajhika alkarimi za nizaam katabtu xulli alxayaadi alizaam bila adan wala jawan wala xarar ولا يدا ولا بلم ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت حبلي عثمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباتنا وارفع به يا مالكي مواتنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأمصار يا ذا الأراضي وسما سل بلا عد على من خدمتي قد خبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الخال والمعالي وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وعلن به النفور واجعل خروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين ilaa siwaa qaari'ihi antal muhin wajlul liman yaqra'uhu xayra muraad wadu yaa rabal wara xayra maraad wahab liman yaqra'uhu maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamiilan yunshitu auzu billahi min asheytaani irajim wa inni u'iizuha bika wa surriyataha min asheytaani irajim rabbi auzu bika min hamasaati shayaatiin wa auzu bika rabbi an yaxduruuni alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadil amin wa ala wa sahbihi ajmain bokki jullit yi gannaaw bu nu musloo ci saytaane ñi ngi ñi ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala tey julli ci ab yonantoom Moustapha sallallahu wa sallam te yëkkate ay kàddu yu nuyoo di ko joyal ci mbooloom yëpp di wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyo boobu ak ziyaara boobu alxalifatul aam li taifatil muridiya as sayidi cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko kazalika ni ki noonu it di nuyu jàmbaari Serigne Touba ji di Serigne Amsatu Mbàkke bu di ñaan sunu borom dolli ko fee yàggal te wéral ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi di jël nuyu boobu di ko teg ci sangub jataay bi muy fadilatu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Serigne Fallu ibnu Serigne Sohaybu moom mi fi teewee Serigne bi di nuyu Serigne Modou Gaye di sunu kilifa di sunu sëriñ ak mboolem ñi ci jataay bi su ngeen gisee jataay bi seen xel dana dellu ci ñaari mbir mooy fàttaliku lu weesu woon ak bàyyi xel lu war a ñëw ci sunu kanam buñ ne fàttaliku mooy jamono jii ñu génn ci at yii nu weesu xam ngeen ne daara jii di jaalibatal maraqib ñi ngi fi taxawal bis bu mag ci diine rawatina ci yoonu murit muy bisub màggalu xaside yi ñu di ko amal ci réew mu mel ni di France mu mel ni bii nu dëgg dëgmal ren mooy doon juróom benneelu yoon taalibe yi di ko jëmmal fii ci dëkk bi loolu mooy sababu sunu daje bi ngir woote képp koo xam ne ab jullit la rawatina koo xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa la ak fu mu mën a nekk ci biir réew mii di France ak yeneeni réew yu du réew mi nu maase bàyyi ko xel te waajal ko màggalu xaside yi xam ngeen ne amal gi ñu koy amal fii ci dëkk bi lu war la ngir suñu borom moo njëkk a yëkkati xasida màggal ko jox ko wàccuwaay bu kawe ndax xam ngeen ne xasida li mu lamboo mooy tagg yonent bi alayhimu salaatu wasalaam ak julli ci yonent bi alayhimu salaatu wasalaam te mu mel ne ñaar yooyu benn bu ci nekk suñu borom moo ko njëkk a def ci alquran digle ko ko def te Serigne Touba radiyallahu anhu dundam gi yëpp daf ko jeexal ci tagg yonent bi ak julli ci yonent bi alayhimu salaatu wasalaam kon dafay mel ne yellu na lu jaadu la lu war la fu ab jullit nekk rawatina ngay ab murit ngay taxawal bis bu ni mel di ci woo say bokki jullit ak bokki taalibe bi yëpp ngir ne njariñ képp moo ci juddoo rawatina nag ci réew mii ñu koy woote yéen ñëpp ngeen xam ko muy France xam ngeen ne am réew la moo xam ne histoire daf ko booleeg Serigne Touba radiyallahu anhu ndax bi Serigne bi jug di woote wooteem bi suñ boroom boyal ay noonam ci kawam noon yooyu fii mooy seen cosaan jëmmal bisub xasida fu nekk ci àdduna ngir fu ko mën a jëmmal dana ràmm ñooñ barab boobee waaye nag rawantanti na ñu jëmmalee ko ci réew mii ñuy wax France taalibe yi nag di jaalibatul maraaxib di ko jëmmal at mu nekk nag te tënk lépp ci ndigal ndax la tafaalu shay'an bi xayri izn fal izn sartun fi qabuli sahn loolu la Serigne Touba digle woon lépp looy jëmmal lu mën a doon na ko ndigal lal ndax sart la ci liy wéral jëf ji ak luy tax ñu nangu ko ba at mi ñu ko njëkkee di amal ba léegi lépp ci ndigal la tënku muy Serigne Amsatu Mbàkke ibnu Serigne Souhaïbou di jàmbaari Serigne Touba joo xam ne dara ñuru ko lu du Serigne Touba xasidaam yi moo yëkkati ndigal li jox ko daara ji ngir ñu di ko amal te woo ci bokki julli yëpp ànd kook ñoom rawatina bokki taalibe yëpp ba tax na daal jaalibatul maraqib mi ngi koy taxawal di ko ànd ak mboolem dawaayir yi nekk ci biir euh, Île-de-France yëpp ak mboolem dawaayir yi nekk ci biir France yëpp waaye di ko ànd ak mboolem murit yi nga xam ne ñoo nekk fépp fu mu mën a doon ci àdduna ak jullit yëpp loolu nag lañuy woote bëgg kenn ku nekk ci ñun mu bàyyi ko xel te waajal ko te soññ ci boppam waaye soññ ci ay bokkam rawatina ay bokki jullitam ngir nun ñëpp ñu mën a dajee ca barab ba xam yi tey li ñu tax a jug li ñuy tax a jug lépp nag mooy sàkku ngërëmal Serigne Touba mu Rasuul te xam nañ ne bokk na ci li ñu gën a mën a may ngërëmal Serigne Touba mooy ñëw ci mbindam mi sax ci di ko sellal ci durus ko ak di fa jàng alquran ak di fa fàttaliku mbaaxug borom tuubaa gi te boobaa loola moo ñuy delloo ci la sëriñ tuubaa radiallahu anhu dëxaloon nasaraan si wax na leen jamono ngi ñëw danaa leen fekk ci seen suuf si di fa wàq ante yéen loola mooy sunu jataay bii ngeen gis ak li ñuy waajal ci sunu kanam muy bisub xasida yi mooy li ma waxoon inni uqaatibu nashara fi ardihim li malikin mutarra kon nag nañu gën a waajalaat lépp ci wàll worma gën koo waajalaat ci sunuy jëmm gën koo waajalaat ci teggin yi ab murit war a tegginoo nu waajalee ko ci fànn yëpp dox dëgmal bis bi ngir daje ci ngërëmal Serigne Touba Xaadimu Rasul bisbi nag ni mu baaxoo doxee at mu nekk kenn ku nekk xam na ko mooy sunu xëyee dañuy ko ci jàng alquranul karim muy téere borom bi subhaanahu wa taala jàng ci ab lim naka noonu sofal ci ab durus boo xam ne dañu koy yendoo suba ba bët setaat eh, ci ay xasida yu wuutee ak lim yu bëri naka noonu it danañu ko sofal it njàngam yëkkati muy njàngam cosaan mi ngeen xam ci kuréel wala njàngum rajas ak boole ci di fàttaliku Serigne Touba mbaaxam gi ak dundam gu am solo gii mu am solo ak fay gu rey gi ko suñ borom fay te loolu yëpp liñ ciy jublu ak liñ ciy sàkku ak liñ ciy dabu rek mooy dajee ngërëmal borom Touba xaadimu rasul loolu rek a tax daara ji nosu di jaalibatal maraqib jëmmal lu ni mel sakk wuñ ci dara lu dul ngërëmal borom Tuubaa Xaadimu Rasuul kon nag ñi ngi leen koy fàttali di ci woo kenn ku mu mën a doon ak foo mën a nekk ak foo mën a fare ñu xam ne Serigne Touba ab liggéeyam mat na waaye suñu borom fay na ko suñu borom yëkkati na ko suñu borom siggil na ko suñu borom sagal na ko te loolu ko suñu borom def lépp tey jii ñun ñi màndarga lañ ci lii wane nanguk liggéey bi suñu borom nangul ab liggéeyam. nam la mu waxoon digoon ko tubaab yi tey mooy jataayu tey bi nga xam ne ku gis toogin yu jekk yi toogin yu mucc xay bi ak lii nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko doon waxanteeg borom bi subhaanahu wa taala ci jamono yoo xam ne lépp ay jafe-jafe la tey murid yi di ko nettali fii ci seen biir réew yi di ko fi dundee danañ xam ne Sëriñ Tuubaa am na ndam Sëriñ Tuubaa am na ngërëm ay Sëriñ Tuubaa yàlla fay na ko yëkkati na léppam kon nanu daje ngërëmal borom Tuubaa ci bis bi di ko xel ñaan mu yóbbu ñu ci ak jàmm Euh, muy juróom-ñeent fan ci weeru mois de mars di juróom benneelu édition bi yàlla na ko fekkee jàmm te ko te dëppoo ci ngërëma borom Tuubaa Xaadimu Mustafaa bismillahi almuin wasalaatu wasalaamu ala haadi al amin wa ala alihi wa bi athaarihim ila yawmi ddin salaamullahi alayna wa aleykum wa ala ibadillahi saalihin mbokk jullit fi teew yëpp ak mbokki mbokki Jalibatu Maraax bi yëpp ak mbokk yi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi am mbégte di leen nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yëpp di nuyoo jàmm bu bàyyi ko ci yàlla ñeel mbindeef yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo boobu yi ak ci ndokkeel googi xalifa général di Mouride Cheikh Seydi El di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi ba mboolem naal yi nga xam ne yéene na ko ci liggéeyu sëñ bi mu am ci lu kawe njortam di nuyu kilifa jotaay bi di jëwrinu barab bi Cheikh Hamsatu Mbàkke moom Serigne Souhaïbou di ko ñaanal bu baax moom itam yéene yim am ci liggéeyu sëriñ bi mu àggale ko def ko nam ko bëgge te ànd ko moom ci ginnaawam ci daraja Xadimal Mustafa mu mel ne kàddu yi li ko waral ni ko sëriñ Aliou waxe sànq mooy fàttali rek donte ak fàttali sax ak fàtte sax amu ci mooy bis bii nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Touba Paris di bisub xasida di bisub xasida boo xam ne ñu ngi koy amale ci ndigalug sëriñ Amsatu Mbàkke ak ci ron kilifteefam mu mel ne solos bis bi ak njariñu bis bi lépp ñëw na ci waaye liñ ci dolli rek mooy mu mel ne bis yi nga xam ne ñu ngi koy faral di taxawal dafa mel ne manis na koo tudde mu bokk ci ijtihaadaat ak tajdidiya yi nga xam ne dafay wuyu lu bari ci ñaan yi nga xam ne sëriñ bi ñaanoon na ko waaye dafay wuyu yu bari ci ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko waaye dafay wuyu lu bari ci neser yi nga xam ne sëñ bi neseroo na ko ci yaatal ab liggéeyam ak tasaare lislaam ak dooleel dëgg ak notum neen mu mel ne bis yi li ko taxa gën a am solo mooy li ci daje lépp te weesuwut wanewaat ak yëkkatiwaat ak yaatalaat liggéeyam bu tedd bii nga xam ne moo gën a tedd fi moom ndax wax na ne li gën a tedd fi moom te mooy ay karaamam suñu borom def na ko mooy am mbindam karaamati xattu yat yi mbindam moom nag dara waralu ko lu may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon noonu mu ko waxee rek nee na jamono yi mu koy bind lu xool lu ne rek lam koy wax mooy bindal yow da war a bind bindal ndax loo bind lu ne suñu borom nangu ko yaqulu lisaanul xaali lii alif bi la taraddudin fallahu min ka qabila comme que nag liggéey bi liggéey bu màgg la liggéey bu mat la liggéey bu ñu nangu la kon gëstu si ak liggéey ci ak sàkku si barke lu ko mat la mu mel ne solos bis bi it des na ko xamee ci domaine yu bari yi nga xam ne bis bi dina ko làmboo ci domaine boo xam ne dundug ruu la waaye domaine boo xam ne wane la waaye domaine boo xam ne yaata lislaam la kon noonu mu ko waxee ne suñu boroom dafa jël ak dundam def ko muy mbégum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa jël am mbindam def ko ci tasaare lislaam ak yaatal ne yàlla ci kaw suuf mu gàcceel loolu yi nga xam ne moo moom la ñu àndaloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def di wër di tasaare lislaam mu wax ne faraxta afdalal wara bi umri wa jaalta xattiya muxjilan li zumari la ca toppet mooy adduna bi nga xam ne li fi daje lépp ci ay njàqare ak ci jafe-jafe te jullit ñi amuñu ci benn ngandaay lu may ñaan yàlla ak dellu ci yàlla ak fàttaliku ci yàlla ak dénkante lu baax ak di ko diglee ko def bis bi da ci jëmmal lu baree bare bare bari bari ndax loolu mooy li làmboo xasida yi sëriñ bi dafa wax ne kitaabati dikrun wa shukurun wa sadaat allahu arsala xilaami wal midaat nee na mbindam wala xalimaam wala daawam mbir la moo xam ne suñu boom daf ko yabal ci mbindeef yi mu nekk lu leen fàttali di leen jariñ waaye mu nekk loo xam ne day tax ñu delloo ko njukkal di ko sant waaye dafay nekk loo xam ne daf leen di jubbanti ci lépp comme que noonu la demee nag lu mat di bari la ñun yéen ñun ñii nga xam ne nag ñun la suñu borom defal tawféex ji ñu koy taxawee loolu xaas la ci ñun comme noonu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko suñu borom yàggal lool di waxee waxtu wu ne kon ñuy daaneel foofu rek suñu kàddu di bañ a guddal di dellu sant yàlla mi nga xam ne tawfeex ji yëpp moom la moo ñu defal tawféex sëriñ bi waaye di sant sëriñ bi it mi nga xam ne bañ ko njëkkee gis ba niñ ko noppee gis ci yàlla rek la nekkoon loolu li muy tegtale mooy kon léppam lu baax la léppam barke la kon noonu mu ko waxee ne suñu borom def na léppam muy sàkkukaay lu baax waaye it di santaat sëñ bi nga xam ne moo tax suñu borom di def suñu borom moom rek lay xool di ko def loolu it len rek lay tegtale mooy lu baax lépp moo ngi ci Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aouzu billah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ci boole gunu sam borom suñu boole ci lii fàttaliku nag bu baaxit it coono bi nga xam ne borom liggéey bi toggoo woon na ko ngir jullit ñépp yàlla may ko ci lu kaw njortam mu wax ne rafaxtu fi xidmat yi taw feexa xaalixana al mulhil ilmi mahil jahli wal alami loolu kon ku ci nekk war koo sellal te war koo fonk te def ci Pastef ndax léegi bu mu fonk la bu diis a diis la te yàlla aj ci lu bari ci jullit ñi ndax am na xasida goo xam bi mu koy def ba mu àggee ci am na bay bu ba mu àggee ci yaa malikal mulki yaa man jalaan xawadin suñu borom de ko ne foofu de loo fa teg ñu may la ko mu ne ko irham jami ora booba day fat ten kenn ci jul mooy sama ñuñ irham jami ora la wax waraa nag lépp ngi ci yàlla bind ngi ci biir kooku nag kenn na lu wut yërmaandeem yërmaande la ci kaw suuf loolu mu ñun ñëpp moo tax ku ne war na cee jëmbat sa fulla duñu wax ne mukk mu di donc war a taxaw waaye yëpp adduna yëpp ñoo ko war a taxawee ci war a sonn ndax liggéey ñoom ñëpp ñoo ko bokk ah te eh, sa imdaat Mbàkke dafa waxoon am daayira bu ne day yéem na ma waaye bi ma gën a yéem mooy daayira bu jógee Paris waaye xasida yi ñuy tax bisu bu ñuy taxawal Paris bu ñuy taxawal Paris Paris gi moom ku ne war na war na laa yéem ndax bu seen yéene àggoon day damaa jëlale ñun ñii fi nekk waaye yoonu mu sax du du tege kaw suuf du fi nekk dara du ci des taxaw nañ tàmm far ko faraale faraale lislaam waaye suñu borom tabaaraka taala moom mooy ki xam moom la doon liggéeyal alayhi salaam sam sam rang ko boole ko mbooloo ñu ko féete ko jot gu ne ba suñu moom àggale liggéey bi fii kon nag nan xam ne liggéey bi selal ko donga moo ne yéene ci donga moo ne war suñu borom sàmm na ko bu yàgg selal selal gi rek yàlla ko yor ak sëñ Tuubaa kon noo ngi ñaan bépp taalibe bu ci ñëw booy jóg sa passif na sell lool te na yaatu te na nga xam ne nag du liggéey bu ndaw noo ngi ci woo képp koo xam ne nii sëñ lislaam ñor na la ndax liggéey bu lislaam la sëñ wax wax itam ne radal xëy di jeexee ci cheytaana li tayabul mamar wala awtaana sa borom wan na seytaane wan na ma sama gannaaw wan ma gannaaw ngir sa borom mi nga moo teyal sama fi may adduna si may jaar ak barab baa jëm ban jëm nu àjjana nu fay sax kon kooku mbiram la cay war war ab taalibe bi mooy pastef ak yi ak yéene rek waaye àggale gi moom suñu ba moo ko kon noo ngi sant yàlla di ci woole mboolem jullit ñi te fonk fonk woo xam ne nii duñ ko def mukk luy xew a dong waa dañ koy saxal dakk te sellal ko ñu bañ guddal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu من الشيطان الرجيم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi siyaar mbokk taalibe bi fi teew yëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu xaq leen bàyyi di xaq te di ñaan suñu borom boole ñu ci ñi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul leen tiitaroo ak ëllëg yowmal xiyaamati kon xam naa rek ñu jëmale waxtaan wi ci li nga xamante ni moom lañ dëgmal mu di màggalu xasida yi sëriñ bu mag bi nag moo ñu jàngal ñun murid yi ne mboolem lu ngeen def rek na ngeen ko fexe xam dog koy jëf e yéen waxambaane yi bu ngeen bañ a gàcce na ngeen xam lu njëkk jëf te it na ci bépp muskalaf mu jëf te xamul atteb charia ba loolu moo ko jàngale kon day yell ci ñu xamle d'abord lan mooy màggalu xasida yi ak lu ko tax a jóg yaakaar naa ne mbooleem àdduna bi war na noo mën a xam ne lu yàlla bind rek sëriñ mag bi mopp lu mu ci bind lépp lu yàlla bind sëriñ mag bi mopp am mbind mopp littérature lu mu bind kon bu demee noonu day yàlla ci mbindum sëriñ mag bi ñu xamal ko waa àdduna ba tax na ay mbokki taalibe yu jug ay julit yu dëgër fas yéene xamle jàngale sëriñ Tuubaa waa àdduna te jaarale ko ci bunt bi nga xamante ni mooy kon solos màggalu xasida yi mooy xamle Serigne Touba te jaarale ko ci mbindam loolu nag xëy na fii Paris lañ ko initié ci jëm ci wàllu France waaye dañoo bëgg suñu itti àgg ci ñu dem ba France yëpp àndandoo di ko organiser maam dem ba nekk sax ab journée internationale xasida boo xamante ni Serigne Touba mi ëpp lu mu bind ci kaw suuf moom lañ koy jagleel nit ñi réviser ay mbindam xam ko jox ko waa àdduna ba waa àdduna yëpp jëriñ ko ndax moom ñi ciy géej ak ñi ci kon àdduna bi yëpp ci am njàngaleem. kon nag ginnaaw demee ne noonu fii ci Paris mbooloo mi fi ñëw bu ñu leen dajalee ba ñu egg si war nañ leen a wax nan lañ war a nekkee ci biir saal bi ndax ñi fi ñëw ay nit lañ ñu wuute ñii mën naa nekk sax xam gëmuñu yàlla ba maanaam bokkuñ ci diine lislaam dañoo romb gis màggal gi daal di ñëw ñii bokk ci diine lislaam bokk ci ay tarixa waaye mën naa am bokkuñ ci tarixatu yoonu murit ñooñ ñëpp nag bu ñu see ñañ fa fekk nañ mal ñoom la ñu xoolee Serigne Touba. ñoom bu ñu xasee ba ñëw seen jaan wàcc na ñun ñañ fay fekk lañ leen wan ci loolu lañuy ñuy dëgg ba jàpp ni li mooy sëriñ Tuubaa wala lii du sëriñ Tuubaa kon nag ñun ña fay nekk war nañ ñoo war a mën a wax nan lañ fay nekkee ba tax na am na ay teggin yoo xamante ni kat dañ ko sàkku ci bés bi lu jëm ci wàllu li nga xamante ni moom la yàlla njëkk a fartaal ci ñun muy waxtu julli yi bu julli jotee waa Jaalibatul Maraaxib ñi nga xam ne ñoom ñoo woote ñu ngi sàkku ci mbooleem jullit bu fa ne la nga nekkoon di ko def na ko baax te ñëw jàpp ci waxtu julli ba julli ba waxtu jàll ndax Serigne Touba moo jàngaloon ne sa julli juróom bu mu xam sa ittee jamono maanaam munoo def waxtu julli lu féete kaw julli ndax mbooleem lu waaye di jëfal yàlla li ko ci gënal mooy nga julli ci waxtu wa kon bu loolu jàllee it am na ay makkaan yoo xamante ni moom lañu def ngir soxna yi am ay makkaan yoo xam ne ñoom lañu jëgleel góor yàlla yi kon kenn ku ci nekk it ñu ngi lay ñaan ngir darajee Cheikh Amadou Bamba mi nga xamante ni moo ñu fa dajale nga yem fañ la yem loo ndax jaxasoo góor ak jigéen sëriñ bi sopp ko te it ginnaaw loolu am na it yeneen yoo xamante ni dana fa xew lu demee ni ki nit ñi dañ fi ñëw di yëkkati ay xasida ñi jóge Sénégal ñi jóge Italie ñi jóge ci yenn bërëb ak ay kuréel xasida yi nag li waay mën a wax ba wax ko mooy ne mbindum sëriñ Touba kon bu ñu ko yëkkati dafa mel ni sëriñ Touba mooy wax rek sëriñ Touba nag buy wax ki am xel te bëgg jëriñu li ko war mooy mu déglu mu teewlu teewlu googu kon ñi ngi koy ñaan mbokk taalibe yi ñëw yëpp ngir ñu sàmmanteeg loolu bu loolu jàllee it am na ay nit ñoo xamante ni ñoom la sant ñu saytu teewlu gi saytu yi teggin yi nga xamante ni moom la war a sàmmanteeg bërëb bi nit ñooñu képp ku xotti mbaa nga jalgati lañ fa lañ fa lañ fa digle dinañ ñëw kat ñaan la ci njëkk teraanga ngir nga jëfee ko léegi nag bu fekkente ni yow dañuy wax ngay ngay nit ki dafa ñëw di ñaan njëkk ngir nga noppi ak di teewlu na nga xam ni ki ñëw di ñaan njëkk kooku yabu la xamu la sëriñ tubaa tax mu di ko def kon boo ko rusul moom it mën ngaa rus sëriñ tubaa mi tax mu di ko def te jóge bërëb ba ci bërëb dagg si ite yàq gasoil wala kérosène ak yeneen yu ni mel ñëw ba foofu jëlee fa merum sëriñ tubaa wala nga jëlee fa merum yàlla loolu yàlla nañ ci yàlla musal te jëlee nañ ci sëñ Abdou Hakim muy wax ju siiw ni fépp fu ñu jàngee xasida képp ku fa yëkkati kàddu bu ëllëg yomal xiyaamate suñu borom dana la bërxal ca safara yàlla nañ ci yàlla musal bu loolu wéyee xasida jëm boppam dafay dugg ci cadre zikkër te zikkër it Sëriñ Tuubaa daf ñoo jàngal ci Masaalikul Jinaan ne ki koy def dafa am ay teggin yu war a làmbool bokk na ci teggin yi mu nekk ci bërëb bu làpp toog jublu penku banque ay tànkam ba am bu ko mënee te it xeeñoo lu neex teggin yooyu nag moom moo war a làmb bés bi te am na ñoo xamante ni ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy saytu lenn lu ci nekk kon ñoo ngi ñaan mbokku taalib yëpp ku fa ñëw rek nga fexe ba sàmmonteeg teggin yooyu ngir nga mën a jëriñu te ni ko alxuraan waxee rek wa saabixuuna saabixuuna wa ulaayka al muxarabuuna kon bés la boo xamante ni dañuy rawante ci yoonu yàlla rawante ci njàngum xasida muy dugg ci cadre zikr kon képp ku raw rek raw nga ñi ngi ñaan nag bés bi bokk ci lii euh, làmboog barke bi Sëriñ Tuubaa di wax ci masaaliku ci xoqal euh, bu kaaw nan ulaayka al xawmu laa yaxsha jalisuhumu laa yaxsha laa yashqa jalisuhumu naan ñoom kuréel lañ goo xam ne képp ku jotaay ak ñoom rek suñu borom jéggal la maanaam bés ba bërëb ba yàlla na nekk bërëb ku kuréel goo xam ne ku fa ñëw rek yàlla na suñu borom jéggal li nga njëkk def ak li nga mujjee def ma ne texe ga am texe dootu ci topp ba illaa yomi kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñoo ngi tàmbale suñuy kàddu ci siyaare xalifatu général di murit sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan suñu boroom yàggal ko fii te wéral ay cëram di siyaar itam xalif général des Baye Fall Cheikh Jëm suñu Cheikh Jëmb Fall di ñaan suñu borom yàggal ko fi moom it te wéral ay cëram bu wér a wér su ko defee ñu ngi siyaare it mbooleem mbokk taalibe yi fi teew ak suñu sang yu tedd yi fi teew di am mbégte mu rëy ci bis bu tawféex gi bi nga xam ne ci lañ dëgmal muy màggalu xasida yi nga xam ne moom la ñu amal France ci Paris euh, di ci woo bu baax mbokk taalibe yëpp rawatina sama mbokk Baye Fall yi suñu ko sañee di ñaan suñu borom ñu ñu leen ñaan ñu jàpp ci bis bi nan ko daan jàppee mbaaru ko raw sax ci ci ci ci ren jii su ko defee suñu borom daa dogal ni ren jii eh, saal bi nga xam ne moom la ñuy amalee màggalu xaside yi dañ koo soppi waaye daanaka sax sore sorewul ak fañ ko daan defee adresse bi mooy vingt 25 boulevard André Citroën ca Aulnay diwaanu Aulnay su ko defee it. Eh, yoon bi nga xam ne moom la ñiy baaxoo jël transport war a jaar moo xam dañuy wàccee aéroport Charles de Gaulle mbaa ñuy jógee ci biir Paris RER B bi la ñuy jël su ko defee ñu wàcc fi ñuy wax parc des expositions suñ fa wàccee nag euh, bus bi ñuy jël la ñuy wax mooy bus 350 bi benn arrêt donc ngay def wàcc fi ñuy wax André Citroën euh, visiteur soo fa wàccee nag daal mën a tàbbi ci salle bi kon mi ngi ñaan mbokk taalibe yépp ñu teewee ko ci jàmm ñaan ñu àgg ci ak jàmm suñu borom defal ñu ci ndam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ok bisimilah barki Cheikh Ahmadul Xadim moo ngi siyaare tey tuub bu baax sunu kàddu yi ñu jël si kanamu kilifa yi ndaa fekk lu mënta ñàkk faw mu am moo taxit faw nu wax leen nu waxloo tey ñaan Serigne Touba dimbali nu kàttanal ba eh, mu tegu si yoon barki xasaay ti Serigne Touba yëpp xam naa liñ ciy wax rek du du bari danga am fu ñu bëgg a àddoo rek ndax li fi jot a li ñu fi jot a yëpp daanaka kenn mënut see teg leneen ni sëñ Fallou ja waxee ci diggante bi ci saal bi foofu rek la ñuy àddoo li ñu ci wax nag mooy dañuy lancer benn appel boo xamante nii ni eh, dafa jëm ci sunu mbokk yi nga xam dañ fay dikk tey yore ay marchandise di ko di ko fa jaay eh, ndax loolu ci liggéey bi la bokk wax dëgg yàlla waaye bàyyi woon nañ leen xel at mu jot. ren nag sunu borom dafa dogal fi nga xamante ne foofu la ñuy defee bis bi espace yëpp daanaka dañ ko occupé ba eh, gisuñu fenn foo xamante ni warees na faa mën a teg lenn ngir jaay ko moo tax ñuy yalwaan te du sunu coobare lu sëriñ bi dogal la ñuy yowlaan bu baax a baax a baax képp koo xam ne da ngaa yoroon ay bagages di ko jaay nga bàyyi xel bu baax a baax eh, ni boo dikkee it mën naa am tuuti jafe-jafe bu fa am ci wàllu woowu. kon ñu ngi yalwaan bu baax baax ñoom ñu ñuy dégg ñu xam ni ren ni la ko Serigne Touba dogale te di ci jéggalu ak di ci tuub bu baax loolu lan ne woon danañ ko danañ ko leeral ngir képp ku dégg sunu kàddu yi te yore ay bagages di ko jaay ñu xam ne ren kat noon la ko Serigne Touba dogale ba boo dikkee ca saal bay doo am benn mbetteel bu fa am ndax euh, dëgg moom faaw nu wax ko rek ngir yàlla ak Serigne leneen li ci toppit mooy ñu ngi lancé waat mbokki murit yi nga xamante ne ñoo nekk ci France gépp ak ci diaspora bi rawatina kuréel xaside yi nga xam ñoo nekk ci euh, France gépp sunu limee dañuy juum waaye bu ñu waxee fédération sud nord est west ak centre bi rek dugal nañ ci ñëpp boole waale ci sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo seq Europe ak li ko wër ñu ngi leen ci soññ bu baax di soññee it ci waxtu wi ñi nga xamante ne ñoo ne ci France gii ñoo ngi leen di soññ bu baax a baax a baax ci waxtu wi ndax ñun dañ leen fee nekkal rek waaye ñoo bokk bis bi waxtu wi nga xamante ne ni ñoom lañ moom lañ convoqué uh, waa Paris gépp ñoom ñu xam ni waxtu woowu la leen convoqué ñoom ñëpp ku ci am yittey fanaan si it dalluwaay yi bari na waaj nañ ko nga ñëw fanaan si bu ñu xëyee suba teel mën a dem ci salle bi jàpp ci liggéey bi ñëpp ñu xam ni kenn du ci ay gan ci ñoom ñoo bokk ak ñoom liggéey bi kon nañ ñëw jàpp ci liggéey bi bu wér bu waree fanaan si ñu def ko su waree teela a ñu def ko ndax ñi nga xamante ni ñoo jëm ci wàllu kuréel yi ak programme bi ni mu tëddee daaw lu mu xat xat xat ren la gën a xat kon li ñuy yalwaan rek mooy ñoom ñu xam ni liggéey bi seenub liggéey la waxtu wi leen convoqué ñu war a jàng rik ngir yàlla ak Sëriñ Tuubaa Mbàkke nañ ñëw ci waxtu woowu te waxtu woowu mooy mbooleem kuréel goo xamante ne yaa ngi France 9h lañ la convoqué ci salle bi bu fekkee da ngaa war a France nag nga waaj ko France bu fekkee ni 9h mën na la faa fekkit nga def ay yite ba 9 fekk la fa. ndax programme bi xat na xat goo xamante ni ba keroog ñuy julli fajar daanaka lépp ci ay programme ci ay ci ay ci ay programme la nekk kon ñoo ngi yamale foofu kàddu yi appel boobu lañ bëggoon a lancé mbooleem kuréelu xasida yi nga xamante ni ñoo ngi dégg te ne ci dëkk bi xam ne ñoo moom liggéey bi ñun dañ leen cee jàppale rek kon ñoo ngi ñaan ñu ñëw ca waxtu wax te jàpp ci liggéey bi ca waxtu wax ngir lépp mën a yemb ndax ñoom rek ñu mën a dimbali ci liggéey bi nag ndax du lu yomb bari nañ ay mbir yu baree baree bari yu ñu war a def yoo xamante ne ni kuréelu jaalibatu gi ak mboolem kuréel yi nga xam ñoo nekk Île de France attanuñ ko mënuñu ko liñ ci def nag mooy kuréelu màggal goo xamante ne ni France ko moom kon ñëpp nañ xam ne ñoo ko bokk ak ñoom ñu ngi leen di yalwaan bu baax a baax ñu ñëw ci waxtu wi te jàpp ci liggéey bi nañ ko war a jàppee te xam ne bisub jaamu yàlla la bis bu nu yaakaar ngërëmal suñ Tuubaa la bis bu képp ku bëgg lu baax rafetlu la rawatina ñi ñi tudd tudd suñ Tuubaa kon képp koo xamante ne yaa nga jóg di fa dikk na nga xam ni Sëñ Tuubaa nga fay fekk te kenn ku ci nekk bu ñu la Sëñ Tuubaa ngi fii booy dikk dinga waajal sa bopp bu baax a baax kon nan ko waajal ci ci ci sell nan ko waajal ci xol bu feex nan ko waajal ci wàccaay ya nga xamante ni bu ñu woon Sëñ ngi nii kenn du defaraat sa toogaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ya mustafa ya muntaqa ya mujtaba salla alayka man hadaka يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الخر وخاد للمرام ولسواي النحي والشقاء كف وما يقرمني ارتقاء وجاد لي بكسرة التلاوة wa zikri wa salaati bil xalaawa ak jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu teewloo kàddu yi am solo yi nga xam ni bàyyi ko na ci jëwrin yi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bu sell bu tedd bii nga xamante ni mbooloom ahlu xasida ñoo koy amal fii ci France ci Paris ci njiital sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu waaye mboolem jëwrin yooyu nga xam ne seetaan ngeen leen ñu ngànk liggéey bu tedd bu am solo bii nga xam ni moom la ñuy def fii ci réewum France ci Paris mbokk yi xam ngeen ni mbooleem daayira yi ak daara yi ak fédération yi nga xam ne ñoo nekk ci biir France wala sax ñu nekk ci bitim réew fu mel ni Allemagne ak mboolem seen mbooloo yi nga xam ne ñoo fa nekk di yëngu ci bi si xaside yi Espagne Belgique Amérique Italie ba Angleterre ñoom ñëpp xam ngeen ni seen mbooloo yooyu dañuy àndandoo ñëw di teew ci bis bu am solo bi nga xamante ni ni ma ko waxee su nekk sunu jañ ak sunu xëcc lépp. mi ngi jëm ci di ci liggéeyal Serigne Touba ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba waxe woon dafa wa jalbi xidmatil haadil amin maal amini wal amini laa amin ngeen seen télévision ma fàttul Bichri waxtu wu nekk dana taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ni mooy liggéeyu xasida yi ren jii lépp loo xam ne ay wàccaay la fas yéene nañ koo ànd ak yéen ci ay plateau ci ay entretien waaye nañ fas yéene wanale mbokk yi ñëw ay tegtal yoo xam ni kenn ku ne buy ñëw dana fan lay jaar ba dikk ci bis bu tedd bi nga xam ni mi nga amee ci France ci Paris mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen andi leen ci seen woote bu matalee bu am solo bi nga xam ni mbooloo mi ñu ngi ko doon woote wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba Muhammad